moom lañ dëgmal muy quatrième édition di colloque international sur le soufisme ñu ko sëriñ Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jiite commission culture communication leeral mën nañ ne événement bu ràññiku la ci biir màggal bi ndax par ñetti at lañ koy def di ci dajale boroom xam-xam yi àdduna bi yépp ngir weccoog ñoom loolu nag bu ñu ko dee def dañu xam ne ni ko waxee léegi Sëriñ dafa liggéey lu yaatu ci xam-xam incarné ay valeur yu am solo yoo xam ne àdduna bi soxla na ko tey kon lu mel ne màggal nga xam ne événement phare la média yépp di ko bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew jaatu nañu profité ci wanewaale njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci question yu bare bare bari yoo xam ne soxal na àdduna li nga xam ne moo nekk ci kàggu sëriñ bi ñu partagé ko ak àdduna bi ndax kenn ku nekk la nga yor ci lu baax war nga ko wane ba àdduna bépp man cee jariñ ñu gis ne màggal gi occasion la pour dajale fi ay boroomi xam-xam yu jóge ci bërëb yu wuute buñ ñëwee indi waaye buñ indee danañ fi jële yow ndax àdduna bi àdduna bu échange la jokkalante la ci ñun am nañ loo xam ne àdduna bépp mën nañ cee jar ñu muy Sëriñ Tuubaa ak lim jàngale moo tax dañuy chaque année bu ñuy def colloque bi wala saa bu édition ñëwee dañuy tànn thème bu am solo wane ci li ci yeneen boroom xam-xam indi waaye wane ci njàngaleem sëriñ Tuubaa ren nag ni ko sëriñ bi waxe ku ne xam na ne fi ne nii cercle de réflexion yépp ñi ngi xalaat ci conséquence su bi mooy jàngoro ji fi tasaaroo ci àdduna bi jeexit yu nar a ñépp ñu ngi def ay recherche di gëstu di waxtaan di xool naka la mën a def ba jàmmaarloog jeexee léegi waxatuñ sax jàmmaarloog mbas mi waaye jeexit yi ci nar a bàyyi loolu la ñu gis ne am na valeur yu am solo yu nekk ci lislaam Sëriñ Tuubaa am lu jàngale ci wàllu xitma ñu gis ci biir Sénégal loolu niñ ko jariñoo ak njariñ li mu am nga xam ne ñeneen ñi mën nañ koo tuddee engagement communautaire wala ñu ko mën a waaye ci yoonu murit di xidma bi Sëriñ Tuubaa jàngale gis nañ niñ ko jëfandikoo ngir wayafal coono yi nit ñi ci biir mbas mi loolu nag exemple yu bari am na ci Sénégal yoo xam ne adduna bi war nañ koo xam kon bu ñu tànnee thème bi nga xam ne wax na ko muy la xidma et les œuvres de bienfaisance comme mécanisme spirituel pour faire face pour conséquence de la pandémie de coronavirus loolu mooy war nañoo xool kon valeur yi lislaam indi rawatina li ci sëñ Tuubaa jàngale nu ñuy mën a def ba jëfandikoo ko ba delluwaat ci ba jeexit yi nar a am ci àdduna bi inégalité bi mu nar a jur jafe-jafe yi nar a jur ñu man koo wayafal man koo wàññi kon loolu mooy mbirum colloque ren nag ni mu ko waxee xam ngeen ni dañoo toll ci contexte boo xam ne contexte bu bàyyi xel la sëriñ bi bi mbas mi tàmbulee gis nañ taxawaay bi ci am jiitu ñëpp ci joxe ay exemple ci nuñ koy xeexe waaye nu ñuy fexe ba fagaru ba moytu ko kon ca logique boobu ci la joxe ndigal ci màggal gi ñu màggal ko waaye ñu sàmmoonte ceeg lépp luy tax jàngoro ju law loolu nag moo tax comité d'organisation bi jël en compte loolu ba colloque bi mu noonu def par ñetti at moo doon am ren ñu ci daan woo ay nit ñu jóge ci réew yu bari ñu nekkoon dañ koy def format visioconférence ñañ waroon a woo ñu ñëw léegi seen réew lañuy ñuy toog intervenir fii ci Sénégal ñi ci war a bokk ñoom it kon loolu mooy format ren bi loolu nag kon buñ ko waxee muy am mu am ñeenti aspect aspect scientifique aspect communicationnel aspect organisationnel ak aspect technique wàllu scientifique bi moom yàlla def na boucler nañ programme bi bala ngeen a dem xam naa not conceptuelle bi ak programme bi dinañ ko dinañ leen ko jox dinañ ci jox ay exemplaires programme bi juróomi session lay doon alxames day am matinée bi ak après midi bi mais ajjuma ji après midi bi lay doon ci la ñuy def euh, cérémonie de clôture ajuma ji suba moom du am dara ndax xam nañ ne ajuma dafa xat kon ñaari fan yooyu am nañ ci fukki communication ak juróom-ñeent bu ñu xoolee fukk yi ak benn juróom-ñeent yi juróom-ñett yi ñëpp ay sénégalais lañ mais fukk yi ak benn mooy ay boroomi xam-xam yu jóge ci réew yu wuute. réew yooyu mat na fukki réew ak ñaar yoo xam ne dinañ ci participer tàmbulee ko ci Sénégal Nigéria somali Irak suri Liban France Belgique Maroc muritani Angleterre yooyu ñépp ku ci nekk am na ñoo xam ne fa lañ nekk jokkoon nañu ak ñoom préparé lañ ba war a bokk ci euh, colloque bi kon programme bi pare na incha allah da ngeen ci jot kon ci wàllu scientifique moom mën nañ ne lépp yemb na wàllu technique xam nañ ne lu am solo la ren ndax nouvelle technologie la jëfandikoo ñu am nag option boo xam ne dañ koo def ren ci wàllu colloque bi option boobu mooy ci ndigalul sëñ Cheikh Abdou ak kilifa yi ñu ànd ceeg UVS mooy université virtuelle du Sénégal docteur Bakhoum mi ngi nii toog moom mooy coordonné équipe yu UVS bi ñu ngi nii ci kaw di def di tester dispositif bi nga xam ne moom lañ nar a utiliser amaat nañ yeneen partenaires yu am solo euh, ATS Events ci la bokk ñoom it daaw ñoo fi nekkoon bi cérémonie euh, officielu màggal bi ñoo ko doon couvrir ñoo doon joxe signal bi di li li li di d'organisation bi ñu amaat beneen koo xam ne moom it ku ku ku gën a yaatu mën na leader la ci wàllu division ci Afrique di euh, Africa Bouquet mbokku taalibe moom am ko euh, di sëriñ Moustapha Bassirou Ndiaye ak Bichri TV ak ñu mel noonu daal mooy ñëpp ñi nga xam ne yor nañ am nañ xarala bu yaatu ñëw nañ ci comité d'organisation bi fekk fii ki nga xam ne mooy gérer intique bi muy Amadou Gueye Ndiaye ñu ànd nekk équipe di tra di liggéeyandoo ba tey ñu am nañ yaakaar ne bu àggee ca bis ba li ñu soxla dinañ ko am euh, wàllu technique bi xam naa. waa IVS am nañ fi représentant dina après dina dina ñëw intervenir waaye damay wax rek ne li tax liggéey IVS mooy ñoom ci loolu mooy seen domaine ndax université virtuelle bu ñu ko waxee bu ñuy jàngale ñoom ci visio visioconférence la ñuy jàngale kon ñoom maîtriser nañ gestion continue bi ci wàllu visioconférence maîtriser nañ ko waaye nag dafa am leen lu ci dolli ñoom dañoo am réseau boo xam ne mën nañu 39000 mi ngi ci seen réseau ci ay étudiants ak i chercheurs ay universitaires ca koy yëngutu ci xam-xam jàpp naa ne soxla nga réseau bu mel noonu ngir jàllale fa jàngaleem Serigne Touba bañ gën cee intéressé wu bañ koo mën a intéressé ci seen i thèse de recherche ak yu demee noonu kon IVS li ñu lëkkale dafa bari te ku nekk nekkoon ak scientifique xam ne yàgg naa lëkkaloo ak université. moo tax loolu kon option boobu ñu bari dama koy leeralaale ndax am na ñu bari laaj lu tax ñu dem US ca ñun fii am nañ technologie bi ak nangam ak nangam fekkte dafa am ay objectif stratégique yu ñu am pour loolu nekkul ne dañu dañu dañu amul technique bi wala lu demee noonu waaye ñoom am nañ ci expérience am nañ lu bari lu ñuy lu ñuy apporter ca loolu bu ngeen visiter portail bi nga xam ne ñoom def nañ ko defal ko koloog bi ci seen site IVS am naa da ngeen gis lien yi danañ ko tasaare da nga xam ne ñoom jox nañ ko gëdd jox nañ ko fulla jox nañ ko jox nañ ko yitte wàllu organisation nag xam ngeen ne colloque bi li ci ëpp technique la moo tax amul présentiel ni daan amee ñu dajale nit ñi ci benn place donte dana am benn plateau bu yam boo xam ne kilifa yi nekk Touba war a ubbi euh, colloque bi war koo tëjaat danañ daje fii mais duñ fi dajale mbooloo dañuy installé fii rek benn plateau boo xam ne dinañ ko jël xam naa signal bi loolu ci wàllu technique bi ñoom danañ ko danañ ci waxtaan xëy na Pape Sène wala wala yes nu ñuy def ba jox leen signal wala Amadou Goy Ndiaye kenn ku nekk mën koo diviser lu la neexee te doo ci sonn doo déplacé wu loolu jàpp naa ne innovation bu rëy la ci wàllu màggal gi màggal gi ren kon xam naa ne euh, damay bañ a gën a guddal mais loolu mooy li ëppoon solo ci li nga xam ne waroon nañ koo leeral bañ xam lan moo tax ñu tànn thème bi contexte bi lu tax ñu changé format bi ak ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey bi lu tax ñu ànd ak ñoom liggéey bi ak fi liggéey bi toll mel na ne ko lépp yemb na plateforme mettre nañ ko en place généré nañ lien yi nga xam ne moom lañu war a utiliser pour dugg li ci des rek moom ñëwoon fi tey test dispositif bi ñi ko séq yëpp tey ñu ngi ci kaw ci régie yi di xool naka la ñuy def ba bu ñu àggee ci alxames yi incha allah lépp mën a yemb yéen ñëpp ngeen mën a am signal bi jàllale li ki nga xam ne moo fi xew kon loolu laa amoon ci ay leeral bu fekkee ne am na yeneen question hmm? su amee yeneen question yoo xam ne jar na ñu dellusiwaat leeral ko ñu doog a dellusiwaat kon damay hmm? man maa ngi tudd Sam Bousso hmm? euh, doon coordonné comité scientifique du colloque bi bi mu depuis 2011 ñeenti édition yëpp së ñu ànd koog euh, sëriñ euh, Cheikh Ahmadou Abdoul Ahad waaye ci tuuru nag daayira Rawdu Rayaahiin ndax xam ngeen ne Rawdu Rayaahiin bi wax na ko léegi mooy daayira bi nga xam ne jamono sëñ Saaliw ba léegi moom lañu ñu dénk lépp loo xam ne mooy activité culturelle ci màggal bi avant màggal bi ak bu màggal bi ñëwee ak lépp loo xam ne aju na ci yoon wi defe naa bërki démb rek gis ngeen représenté nañ fi benn livre blanc boo xam ne loolu ci liggéeyu raw rayaxin la bokk sëñ Ahmadou Badawi bu Cheikh Mahamadou Fadil moo ko jiite ànd ànd ceeg borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci Touba ak ci ci yoonu Mouride. ci colloque bi ndax colloque bi chaque fois dañuy def ay résolution wala ay recommandations yoo xam ne dañ koy yóbbaale. ñu gis ne day am ay jeexit yu bare bare bari waaye bokk na ci objectif yi colloque bi mooy ñu publier acte yi maa ngi doon wax ak léegi ki yor communication ci UBS ma ne ko ah acte yi ñu génne woon ci quatre colloque yi passé war nañ ko def ci pla ci portaay bi ngir que nit ñi man koo am mu gën a mën tasaaroo ndax lu am solo xam-xam bu am solo moo fi génn kon bokk na ci suñu objectif mooy bu colloque bi noppee li fi daje lépp ci ay communication ñu def ko ay acte publier ko acte 2011 yi ak yeneen acte yi du 2011 moom am na ñaari version français ak arab yeneen yi ci des am na ci yoo xam ne publier nañ ko euh, ci ay sous forme d'article waaye li ñuy li ñu yéene ji moom mooy ñu dajale acte yëpp mu nekk livre boo xam ne day day day tasaaroo ndax xam-xam lay doon boo xam ne adduna bi yëpp mën nañ cee jaru ndax nekkul rek événement boo xam ne dañ koy def mu mu ñu dajaloo mu xumb ñu tasaaroo waaye ay borom xam-xam lañu woo yoo xam ne dañu def ay gëstu ci domaine bi bu ñëwee fii li ñuy exposé lu tuuti lay doon par rapport ak li ñuy gëstu ndax kenn ku nekk 10 minutes lañ lay jox mais da nga gëstu lu baree bari ñu jox na 10 minutes nga exposé conclusion yi rek mais lan la ca des boo noppee da nga ñu koy jox bu ñu ko joxee bu ñu paree ñu compilé ko génne ko publier comme acte colloque bi nga xam ne moom lañ doon def ndax ñii ñëw. dana am na yoo xam ne ci arabe la ñuy def seen exposé am ñoo xam ne ci français la ñuy def seen exposé kon active bu noppee naturellement dañ koy def ci langue yu wuute français moom dana am ak arabe dina am léegi suñu demee mën nañ koo def anglais ak yeneen ndax liñ fiy waxtaanee du pour Sénégal ñeneen yi dañuy indi seen i expérience bu bu ngeen parcourir document bi da ngeen ko gis am na expérience Nigéria am na expérience Jordanie am na expérience réew yu bari waaye ñun ci loolu la ñuy jaare wanewaale expérience su Sénégal wanewaale ci biir loolu njàngaleem Serigne Touba ndax bokk na ci rek euh, maanaam jeexit yi nga xam ne colloque yi wees am na am na ci colloque yoo xam ne ñi ci participé woon bañ demee commencé nañoo jàngale yoonu murid ci université yañ nekk commencé nañu jàngale Serigne Touba ci université yañ nekk bi ñu defee première colloque bi deuxième colloque bi ñëwee am na fu ñëw bi mu ñëw encyclopédie bi mu indaale daf cee yaatal lool yoonu murid ci ñëw gi ñëwoon Touba ba xam yoonu murit xam njàngaleem sëriñ bi moo tax ba muy defal benn encyclopédie ci soufisme mu indi ci pàcc bu yaatu ci sëriñ Touba loolu jàpp naa ne njariñ lu am solo pour que àdduna bi xam sëriñ Touba ndax suñu devoir la ñun ñu tasaare njàngaleem sëriñ Touba te bu ñu dee tasaare njàngaleem sëriñ Touba rek forcément danañ utiliser langue làkk yi nga xam ne mooy tasaaroo ci àdduna bi